alhamdulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu bi euh, ñu ngi nuyu ñëpp di sant yàlla itam ci programme bi nga xam ne moo ñu boole fii tey muy àndoo ci yàlla ak lan mooy njëriñam loolu jotaay bii rek wane na àndoo ci ak lan mooy njëriñam buñ ci waxu dara sax jotaay bi wane na àndoo bi ñu ànd ak Maulana Cheikh Ibrahima lan la jural nit ñi lan la ñu jural li Cheikh Ibrahima Niass wax sànq al imaam ne xeet wu nekk mu ngi fii tey te dégguñ sax li ñuy wax ak ñoom waaye mbëggeeli kàndoo gi moo leen indi bañ ñëw teew fii kenn owu leen kenn wax leenu kenn wax leen waxul leen ne nañ ànd dem tey ba ñoo ko coobarewul seen bopp ngir kàndoo gi nga xam ne nekk na suñ digganteeg ñoom nekk seen digganteeg Mawlana Cheikh Ibrahim yal na yàlla fayanteeg ñëpp yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam bala ñoo dugg ci kàndoo dafa nettali benn xadis wala dafa wax benn xadis ne sabatun yuzillihum llahu yowma la zilla illa zillu al imaamu al aadil shaabun nashaa fi taatillah ورجل تعلق قلبه بالمسجد حتى يعود إليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بيمينه فأخفاها حتى لم تعلم شماله ما تصدقت به يمينه ورجلان تحابا في ذات الله تبارك وتعالى Cheikh Ibrahim firi na xadis boobu mu ne juróom-ñaar ñi nga xam ne yonent bi wax na ne yàlla dana leen eral bis ba nga xamee ne benn ker amut lu may kere moom yàlla mu ne mooy ilimaan ju maandu ak ndaw loo xam ne dafa sosu rek sosu ci topp yàlla ak góor goo xam ne xolam mu ngi aju ci jàkka ji ba bam ciy delloo ak góor goo xam ne jigéen ju am daraja ak taar oo na ko ci boppam mu ne ko ragal naa yàlla ak góor goo xam ne saraxe na ci ndeyjooram nëbb ko ba càmmooyam yëgut li nga xam ne moom la saraxe ak ñaar ñoo xam ne dañoo bëggante rek ngir yàlla bàyyi mu ne ñu yonent bi tudd ci xadis ji yépp bii moo ci gën a yomb te moo ci ëpp njariñ mooy ñaar ñu bëggante ci yàlla ndax bëggante ci yàlla boobu moo waral suñ jotaay bi tey te yàlla wax nañu ci xadisul qudsi ne wajabat mahabati lil mutahabina fiya wal mutazawirina fiya wal mutajalisina fiya wal mutabazilina fiya ñeent yooyu yépp diri na sembaanam ci nga xam ne ñu ngi toog fii tey te yonentu bi salallahu alayhi wa sallam laaj nañ ko ne ko ñan ñooy yu yàlla yi mu ne aw nit rek di doomi aw nit jóge ci ay barab yi fasantikoo derek boolewu leen séddoo alal boolewu leen waaye yàlla rek moo leen boole ñooñu ci ay minbar la ñuy nekk yowmal qiyaamati shuhadaaw yi ak anbiyaaw yi di leen xool di leen ñee fekk ñu ca kaw ñoom te dara mayul leen ko lu may bëggante ci yàlla Cheikh Ibrahim nag bi mu ñëwee bunt boobu ubbi na ko mu yaatu yaatu koo xam ne benn sëriñ walla waliyu mësul koo def fexe na ba ñu dëkk penku xamanteeg ñi dëkk ci sow ñu dëkk fii ci bëj gànnaar xamanteeg ñi dëkk ci càmmooy ñépp mën a ànd bëggante ci yàlla bëggante ci yonent bi bëggante ci Cheikh Tidiane bëggante ci jëmmam moom loolu moom rek la ko yàlla mës a may waxoon naa ko ci ziyaara Sidi Ali bi passé ne yàlla defal na ko loo xam ne benn wali yu mësu ko am ku ci mer itam meral bu ci wax ndax boo ci waxee itam tegtal yaa ngi nii di la fenloo rek yàlla defal na ko loo xam ne benn wali yu mësu koo am ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëgg-dëgg moom la yàlla yónni ci ñun waaye lim fi bàyyi ci ñu gëm yàlla téeméeri junne lañu ak ñaar fukki junne ak ñeent Cheikh Ahmad Tidiane mi nga xam nañ ci tariqam lañu nekk lim fi bàyyi ci ay saxaba yu ko gëm jël wirdaam téeméeri junne lañ ak ñaar fukki junne ak ñeent waaye Cheikh Ibrahim ay malaayin la fi bàyyi te gannaawam itam ay malaayin toppaat nañ ci loolu loolu amul benn waliyu bu ko am waaw daje bu ñu mën di wax. buñ ne mën nañ ñetti million mën nañ ñeenti million dafay rëy lool waaye bàyyi su taalibeem yépp daje woon téeméeri million lay nekk ak nangam te kenn mënu koo dindi te bi mu fi jógee juróom benn fukki million mat nañ ko ba mu fi jógee ba léegi ñu ngi dolleeku daa man te mësuñoo wàññeeku moom moo wax ne man de damay wax ne su duutoon dara صح لم فخي با شركو بقال يالا جيخ تي مبيندي في رك لول دوينا اندك موم تا موم مو واخني واصغر اتباعي بريء من الشرك مو واخ فنان تام واصغر اتباعي انيل فناء ñaar yoy yep sen maana ben la ndax ku jeex ci yalla sa shirku jeexna ku shirku jeex ci yow tam sa jeex ci yalla madna su taxtoo nag dara lu may lim fexe ba loolu jeex ci mbindeef yi te shirku yonent bi waxoon na ne axfa min bi nëmlati fi laylati zalma moo gën a nëbbu yukkooti melentaan wowu ñuy wax xorondong ni muy yukkootee guddi ci kaw xeer ci guddi gu lëndëm nga xam ne gis ko mënta nekk wala jafe na bokkaale yàlla moo gën na nëbbu waaye fexe na ba ñi ànd ak moom lim leen di njëkk a defal mooy dindi bokkaale seen diggante ak seen borom moo tax Cheikh Serigne Bay di wax ne ku fexe ba nga xàmmee yàlla ak lu duwut yàlla kooku moo moom ci wàll gu nekk wax na dëgg waaye moom moom nit ñi ci wàll gu nekk ñi ànd ak moom itam yàlla moo leen defal tawféex bañ ñëw mën a ànd ak moom yàlla moo jublu ci ñoom ñu jëriñu moom moo waxoon bu yàgg ci jamono koosi ne kullu muridin yasdari muridi bi adabin wa xidmati lmuridi lakin man saxibani muraadu ida kanaalu kulla ma araadu mu ne taalibe yeneen tariqa yépp ñu ngi xeeb taalibe mi di wax ne li ñu war a defal seen sëriñ defaluñ ko ko ci teggin ak liggéeyal ko waaye nag mu ne dañoo xamul ne moom ku ànd ak moom muraad nga nekk door a mën a nekk murit maanaam ñi ànd ak moom yàlla moo leen tànn kon nag ñi nga xam ne ñu ngi ci ron ker googu nañ sant yàlla amat xadi nag guddi gii mu ngi ko ootee mu ne pour ñuy wax yi kandoo ah moom si di àll yi mi tax muy def dajey bii na seet Sidi Ali kàndoo gi mu ànd ak bàyyi nga xam ne àndutoon ak benn tappale àndutoon ak benn naxante te bàyyi moo ko wax ne ko dara mësuma naqadi ci yow ba nga sosoo ba fi ñu toll nii moo ko wax ci leetar kon kàndoo gu wér la def kooku lan la am ci kàndoo googu am na ci lu nekk am na ci loo xam ne sax soxlawu ko woon am na sax ñoo xam ne àndak moom ci lañu amee li ñu bëgg lépp te loolu itam bàyyi moo ko ñaanoon moom waxoon ne yow yàlla yàlla nga ma méngoo yàlla nga yàlla nga méngoo ku ma méngoo yàlla nga méngoo ku méngoo kooku Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu anhu wax ne mu ne yàlla wax na ci xadiisul qudsi ne man aada li waliyan faqad azantuhu bil xarb ne képp ku noonu suma waliyu pare naa man yàlla pour xeex ak yow Cheikh Ahmad Tidiane mu ne ci mbootam xadis moomu ci la jëlee ne kon man waalaali waliyan taxastuhu waliyan mu ne képp kon ku jokku waliyu yàlla yàlla def la ngay waliyu moo tax Sidi Ali soxba googu nga xam ne moom la def ak bàyyi nga xam ne ci fukki atam ak juróom lañ ko fa indi lañ ko fi indi mës bëgg leneen li nga xamee ne saxaaba yi bañ taseeg yonent bi buggaatuñ leneen moom itam bi mu xamee baay mës ta bëgg leneen baay doyoon na ko ci lépp bàyyi itam ràngal na ko ay manto yoo xam ne daf ci wéralee kàndoo ci yàlla lim mën a may nit ndax koo xam ne dem nga ba sa sëriñ di la bind leetar naan fa ilaa xabibi al awwal ci feneen mu ne ila aazil ahibaayi wa akbaril umana wasf bu nekk rek jox na ko ko loolu yépp dafa bëgg a wane ne ku bëgg a jëriñu jaaral ci fikki jaar samra boobu nag ñépp teg nañ ci seen bët lu may koo xam ne yàlla moo gëmmuloo sa bët kooku moom kenn mënu ci moom dara moo tax ci gàttal rek dama ne seen kàndoo ñoom ñaar rek doy na pour tontu waxtaani tey wii te bàyyi wax na ci benn leetar ne fa huwa rasuli ilaykum wa rasulukum ilayya wax na itam ne lépp lu dugg ci loxoom xam leen na dugg na ci sama loxo wax na feneen itam ci leetar boo xam ne Ousseynou Touré la ko bindoon ca Banjul ne fa huwa alxaadimu alladi laa yataxarraku illa fi shuunina xaasatan فالقائم معه قائم معنا ومع الحضرة التي أنا خادم فيها يو يب لم تكتلرك موي أندون أندو بوير وايتم تسيناك فاي بوير تي دندم في نخموم نجك موي جينا أدنا تي أد ميغا خمنا تي لجينا أدنا دفا أندك مام شيخو أفسطو ميغا خمنا أنا ندورم لون نجم فرفيني Cheikh Absatu mu ne sëriñ bi ne ko Cheikh Absatu man suma dund jeex na mu ne ko sëriñ bi bul waxati loolu mu ne sëriñ bi ne ko man lépp lu ma buggoon ci suma sëriñ bëgg ko ci yàlla am naa ko lépp lu suma sëriñ bëggoon ci man itam am naa ko lépp lu suma baay buggoon ci man am naa ko ne ko suma baay juróom fukki at ak juróom-ñett la dund yonent bi juróom-benn fukki at ak ñett la dund ma dem ba dugg ci ati sëriñ bi juróom-ñaar fukki at ak juróom ngeen bëgguma génn ko pour lan maa ngi doon xemem rek ne su ma amaatoon dund ba ñiy mag ci suma doom yi ma utal leen ay kër bala maa dem te loolu sax bàyyi naa ko yàlla waaw bàyyi naa ko yàlla yàlla dana ko def kooku kon dund bi sax bëggutoon a génn at yi nga xam ne ci la bàyyi dund waaw ah. ci àndoo boo xam ne ci lépp la ci li sew ak li mag yépp feeñal na ko ci moo tax jëlee na ci loo xam ne itam ñépp xam nañ ko te dars la itam pour képp ku bugg a àndoo kan ngay àndoot booy àndoo àndoo la koo xam ne mën na la jëriñ Cheikh ma Tidiane ci njëlbeenam daf doon wax ne kànjar gi nekk ci moom ku ko mënta soppil urus rek du ànd ak yow xànjaram gi ku ko mënta soppi urus du ànd ak yow njëkk loolu ibnu ataayillaay waxoon na ne laa tas tasxab man la yunhiduka xaaluhu wala yadulluka ala llaahi maqaaluhu bul ànd ak koo xam ne waxam du la buurloo nga jëm ci yàlla xaalam du la buurloo nga jëm ci yàlla waxam itam du la tegtal yàlla sooy àndoo daal àndal la koo xam ne wax foo ko xoolee fàttaliku yàlla te ay njëriñ yu bëree bari dana jóge ci moom ñëw ci yow yow nag oustaz Ahmad Khady ñu ngi lay yaakaaral njëriñ yooyu ndax kóllëre yi nga xam ne wax su nekk yaa ngi koy eesal ñu lay ñaanal yàlla yal yàlla gën a dimbale yal na la yàlla gën a wattu li nga xam ne itam moom nga yaakaar ci pays yi Mawlana Cheikh Ibrahim jaaree ko ci Mawlaana Seydi Ali yal na la yàlla jox lépp yal yàlla def dëkk bi muy dëkki teraanga daa man yal na ko yàlla def muy dëkki kaaraanga daa iman yal na fi yàlla wàccee barke boo xam ne daf fi sax daa man ñu ngi lay ndokkeel itam ci ansaaru diin bi nga xam ne yaa ngi yëngatu yëngatu boo xam ne bu fes la ñëpp xam ne ku dëggu nga ci li nga nekk yaa ngi ci liggéey te ansaaru diin képp ku ci yëngatu bàyyi nga ko defal yàlla def na président national mu ngi fi toog président département mu ngi nii toog mu ngi sëriñ Aliou ñan ñi dimbalanteek ñoom ñu ngi fi ñu ngi xiir mbooleem taalibe bàyyi nañ dem fexe ba bokk ci daaira boobu ndax ku ci bokk bis boo taseeg bàyyi da nga xam koy jaar danga xam koy àndat ku ci bokkut itam bis boo tasee moom mu du mooyu la yaa ko def sa bopp dafa am benn waliyu benn sëtu yonantu daf koo ñëwal ne ko man sëtu yonantu laa dama wàcc ci dëkk bi tumuranke aw ma fu ma fanaan mu ne ko indil ma tegtal buy wane ne sëtu yonantu bi nga shérif bi daal di dem yoonam moom mu tëdd géwant gis yonant yonant di joxe kawsara mu ñëw ba jub yonant bi yonant bi àddu ko ne ko demal indil ma lu wane ne ci suma xeet nga bokkoon kawsara doo ci naan maanaa loolu li ma bëgg a wax rek mooy li nga xam ne moom la bàyyi bàyyi fii digle ko ku ko topp boo taseeg moom sa yoon dana leer te da nga mucc ku ko topput nag ci sa affaire yi bopp nga nekk topp toolal sa bopp sa diggante yàlla ñaanalal sa bopp moo tax ñi ci nekk ñu ngi leen di ndokkeel ñu ñaan yàlla yàlla yàlla dimbale leen yal yàlla wattu leen ndax li ñuy liggéey yépp pour bàyyi la li ñuy liggéey yépp pour pays bàyyi la kon ànd ak ñoom dafa war ñaanal leen itam dafa war ñu ngi leen di gërëm ci seeni coono yépp di ñaan yàlla mu may leen ndam ndam moom foog mu am ndax bàyyi mësta yëkkati mbir mbir moomu tëdd ci suuf lu mu yëkkati rek ca kaw la jëm te loolu moom moo ko yëkkati moom moo ko tudd kon nag képp ku ci nekk xamal ne yaa ngi ci buum goo xam ne du dog mukk sidi ali dafa firi waatasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu ca kanu mu ne jàpp leen ci buum ak yàlla gi nga xam ne du dog mukk te bu leen tasaaroo mu ne buum googu nag am na ñu ne mooy alquran mu ne am na ñu ne mooy yonent bi sallallahu alayhi waaye moom day dafay wax ne mooy cheikhul islam wa saadatul anam mooy Mawlana Cheikh Ibrahim moo tax ku ci jàpp rek ñu ngi lay ndokkeel ñu ngi ñaanal yàlla ñépp ñuy gërëm mboolem waa dëkk bi ñu gërëm mag ñi ci njiital Baye Aliou Seyni ñépp gërëm nañ ko te ay jëfam tegtale na loolu yàlla na gërëm yàlla na ko fi yàlla yàggal yal na yàlla saxal barke ci moom yal yàlla barkeel njabootam yal yàlla barkeel lépp lu tax ci moom yal na yàlla yokk ko te bañ ko wàññi te yàlla guddal fanam ñu ngi gërëm ñëpp mbooleen ñi nga xam ne dimbalante nañ ak Amar ci bis bi ñu ngi leen di ñaanal yàlla yal yàlla ànd ñoom yal na yàlla dimbale leen maa ngi del siyaat ci imam Cheikh Ibrahim ibnu Xaaja Abdullah ñu ngi koy ñaanal yal yàlla ànd ak moom moom itam yal na yàlla dimbale yaa wax dëgg yàlla taar la ci dëkk bi comme ni nga xam ne noonu la ko bàyyam nekkoon woon na yàlla wattu ko te yàlla jox ko ay càkkutéefam yépp yu zaahiri ak yu baatini képp ku fi teew soxla boobu mën a amee yàlla na ko yàlla faj lu ci dul mooy yàlla dul yàq ak bopp képp ku fi teew jafe-jafe boo am yàlla na ko yàlla yombal képp ku fi teew bàkkaar boo am yàlla na ko yàlla far képp ku fi teew jàngoro bu mën a nekk ci yow nga xam ko nga ñàkk koo xam yàlla na ko yàlla saafara képp ku fi teew te am ku tukki yàlla na ko yàlla delloo si jàmm yàlla nañu yàlla boole wattu ñun ñëpp ci lislaam te wattuñu ci gëm yàlla yàlla nañu yàlla saxal ci li nga xam ne moom mooy la moom la Mawlaana Cheikh Ibrahima radiallahu rëdd saxal ñu itam ci li nga xam ne moom la bëgg ndax loolu mooy leeral suñ dox fii ci àddina mooy leeral itam suñ dox ëllëg ci àllaaxira yàlla ñu defal loolu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu la ilaha illallah